kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilaay jàmm la solo yéene kaay lañ koy xëy daal di doore mu ànd ak maître Sidiki Kaba mi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon ñu ni coowal yoon li nga xamante ni laal naag Khalifa Sall di maire bu Dakar yéene bi daal di xëy daal di fësal ni ca ndajeem union des magistrats UAG ba nga xamante ni moom lañ doon amal ñu ni nag kii di maître Sidiki Kaba yëkkati na fa ay kàddu di xamle ni daal du ki nga xamante ni moo di député xalifa Sall la ñu daal di arrêté waaye kañu ñu teg loxo nag du kenn ku dul meer bu Ndakaaru yéene kaay bi xëy na daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk ba xam ca loolee la yam le quotidien yéen a kaay bi xëy daal di koy feelu di ñu xamal ni ñu kàddu yooyee lay dellu di ko dëggal nag mu xonq cur mu xam leen ci daal bu député bii nga xamante moom la ñu dippee Khalifa di teg loxo boo ko xoolee ba ca biir coow li moo di am na leneen lu nga xamante ni moom la maître Sidiki Kaba daal di tontu ñi nga xamante ni nag ñoo di ay avocat Khalifa Sall mu mel ni nag ku yabu daal di waaf enquête yéen di ñu fi mu toll nii nag beneenub ay daal day jóg ñu ne ay woowu nag moo di ayuk révolte lañ ko daal di tippee ndaxte nag te li ko remplacé na Maguette Diop mi fi jiite woon magistrat yu Sénégal yéen kaay bi dañu xamal ni ñu sax de dot nañu daal di ruumbalaat ci li nga xamante ni moo di wat bañ doon amal foofe noonu ni ñu am na ab polémique bu ca daal di juddu loo ca mënti dégg daal jàpp nañu ni daal mbir mi mujj na daal di sotti de ndaxte nag kii di Souleymane Teliko moom moo daal di nag mujj daal di jiite ñii di magistrat yi 24 heures daal di jël dellu si waat ci moom di ñu xamal ni ñu jiite nag union des magistrats du Sénégal ñu ni bokk na ci kenn koo xamante ni daal 24 heures di ko xamle di ñu xamal ni ñu sax de diggante nag ko moom moomu ak nga xam xamante ni ñoo di kilifaam lu jëm nag ci wàllu justice fa seene ko daal di doxal ba lépp daal di ñoŋ bokk na ci ay chantier naka noonu tamit nekkin yi nga xamante ni moo ñeel waa wane ko këruk yoon gi yamul ci loolu rek de ñu ni nag mbir mi nga xamante ni dox na ci diggante maître Assane Dioma Ndiaye ak ko super procureur bi jot nañu am lu ñu jokkalante ci seen biir kaaw Khalifa Sall ngir indi ci ay leeral ak article 61 de la constitution système judiciaire bi ni nga xamante ni noonu lay doxee ba xam ma ne ko laaj na ak coppite mën na nekkam di joxe kooku di maître Sidiki Kaba mi nga xamante moom la ñu dénk wàllu justice ci yoon wàllu justice di yoon ci réewum Sénégal ñu ni àdduna nag ci mbirum Khalifa Sall comme ni mu ko waxee naka noonu Ouleye Mané Ami Collé Dieng Ba waaye tamit daal di ci Assane Diouf Assane Diouf yéene bi ma ne ko dellu daal di koy xamle ku yabu ne xalaas laas yéene kaay dagg ca lang ga ni ñu Abdoulaye Daouda Diallo du njiit jàggate mooy njaag ndaxte nag moom moo daal di bind lettre ba ba nga ni nag moom moo tax ñu daal di jàpp ki nga xamante ni moo di Assane Diouf yéene kaay bi jàpp nañu ni daal bu ñu sukkandikoo ci jot nañ ko xamle nee nañ Assane Diouf moomee moo ma ne ko di ab ko saaga kat number one lañ ko daal di dippee moom sax de nee nañu boo moytuwul danañ ko daal di delloosiwaat fii ni ci Dakar Vox Populi indi ci ay leeral di ñu xamal ni ñu Assane nag da doon taal daay gi far daal cay lakk ndaxte FBI teg nañ ko loxo rax ci dolli nag boo ko xoolee ba ca biir moom nag lu jëm ci ay kayitu immigration sax de ma ne ko leerul ci moom kon bu ñu moytuwul dana daal ni cëpp fii nii yéenekaay bi Vox Populi di xamal ni ñu Assane moomee nag nekk ci internet bi réseaux sociaux yi di saaga nekk ca états yéenekaay bi dellu na di xam le ni daal ministre de ma ne ko ma ngi koy xaar moom di maître Sidiki Kaba nga koy xamle daal moo di ay mbiram bu sottee bu ñu moytuwul danañ ko dellu si waat ci Sénégal gii nga xamante ni fi la fekk baax yéenekaay bi na daal di koy xamle moom daal fi mu toll nii chaîne de télé YouTube bi nga xamante na ni daal jot ma ne ko daal di wàcc këram juróom-ñaari woto lañ fa daal di wàcc ak 20 agents yéenekaay bi xam ne ni ginnaaw bañ ko dégloo FBI mën ne ko jébbal ko juge bi yéene kaay bi loolee la xëy daal fësal laataa ñëw tàggoog les échos yéene bi ñëw ci guddi gu bët setegul ak mouvement LD debout bi nga xamante gis nañ ni teg nañ ko en place yéene bi di xamal ni ñu daal tolloog ñeent fukki responsable ña nga ca waaye tamit l'évidence yéene kaay bi di xamal ni ñu Mame ak Lamine Dieng moom la daal dippee échec bi nga xamante moom la ñu ma ne ko la ñu sàkk ci ñoom ñëw di ñu daal di bi na ko l'observateur ñëw ci loo xamante ni dañ ko daal di nemmeeku ci li nga xamante ni moo di crash bi ñu gisoon ci avion bi yéenekaay bi jàppale ne daal équipage ba ñu ni nag lu tollook daanaka benn minute rek ginnaaw bi mbir mi daal di xewee te ñu la ñooñee ma ne ko daal di faatu danañ ci dellu siwaat l'observateur balaa booba libération ñëwaat ci ma ne ko xibaar boobu ba tey di ñu xamal ni ñu daal détail bi nga xamante ni rapport explosif bi indi na ko coow li ma ne ne ko ku ca bëgg a am am lu la leer ak ne ko Sénégal Air di nga daal di jàll ci biir yéenekaay bi xusandi ci yéenekaay bi ba tey dellu di xam ni sax ANACIM jot na ma ne ko am lum ci addu Dakar Time ko nag la mu tal moo di lan la nga xamante ni moo di tëgg wëndeeloo kaw tëf gi nga xamante ni mi ngi ci contrat lii nga xamante moo di Ila Touba bi autoroute boobu nga xamante ni financement projet autoroute bi nag fi mu toll nii wéy na di desu xambin ndaxte n làmmañu koo ca tudd ku ne rek ak lam la cay wax ak la ma la nga ni moom la cay addu mu mel ba yamul ci jëfeegul la nga xamante ni moom lañ ca tënk donte de ma ne ko njiitu réew mi lancé woon na ko ngir ñu bëggal ko amal nag lu diirub mel ne ko ñeenti at mu sotti waaye nag Ila Touba boobee jar na daal di gëstuwaat yéen kaay bi ñu xamal nañu ñu festival offensif du PSG ñu ne Neymar nag fi mu toll nii daal lu mu waxul Paris daanaka dafa fekk ma ne ko amul wala nammul loolu suñu lamb yéen kaay ni ñu motloo li nga xamante ni moom la nam te bëgg ko nag moo di pëncheuru waalo bi daal di tëj lamb ñam te noppi ndaxte wax ji bari na lool ca fa jóge tab bi wàccu l'observateur yéen kaay bi ñëw ñu tab di ñu yóbbu nag ci afrobasket bi ak ma ne ko suñu tañeer bii nga xamante ni nag suñu gaynde yi la nga xamante ni dab na leen fa moo ma ne ko biir yu daw la nga xamante ni yéen bi jot na ko ca xamle daal nee na caakri ak ma ne ko biscuit nga ca biir waaye 24 bu buñ ca dellu si waatee mu ñëw ci jéye ji nga xamante ni jot na am waaye la nga xamante ni moom la ci xamle daal moo di cinq di juróomi enquêteurs yu nga xamante ni jot nañu daal di faatu ca traversé bañ doon amal accident ba nag ma ne ko ma nga xewee ca ñoo ñooñee noonu ña nga dokk ca ANSD di woon ma ne ko mission bu nga xamante ni moom lañ fa doon amal di agence bi yor wàllu statistique ñu yenee ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ngëpp ko ñëpp comp as ci yéene kaay jaa ngeen jëf